Euh, maa ngi tudd Mahamadou Wane euh, nekk chef de service administration du personnel ak relation sociale de compagnie sucrière sénégalaise teewal fii nekk euh, comité technique sectoriale industrie alimentaire. waaw ndaje bi ndaje bu am solo la moo tax ñu teew fi parce que moo tax tamit ñu àddu ci indi communication pour ñu diisoo. donc waxtaan par rapport ak euh, secteur agricole donc euh, comme ni ñu ko waxee rek euh, compagnie sucrière dafa nekk entreprise bu ëpp lu muy jël ci liggéey liggéeykat ci Sénégal donc mhm. juróom-ñetti junne travailleurs donc lu ci gën a bëri juróom-ñett junne yi juróom juróomi téeméer yëpp ak ay ouvriers agricoles donc sànq maa ngi doon waxtaan ci suma kàddu par rapport ak activité ñuy amalee dagg gattax bi ba yóbbu ko ba ci usine bi mu wol ko mu segg ko ba ñu taaral suukar mu doon suukar loolu yëpp day indi activité yoo xamante ne day day mun mën na indi ay risque ci ci ci ci liggéeykat moo tax nag mu jël ay matuwaay yu mucc ayib ci wàllu service médical bu fa nekk wàllu tamit poste médical avancé yoo xam ne ci biir plantation yi te plantation yi dafa sori mu ngi ak vingt cinq kilomètres site de production donc yooyu yëpp ay ci wàll comme inspecteur nu mu ko rappelé donc teg yoon ak yoonal tegu ci ndodd employeur par rapport ak kaaraange ak saytu wér-gu-yaram travailleur yi donc euh, loolu yëpp kuy liggéey lu toll junney juróom-ñetti junney travailleur je pense que da ngay jël say matuwaay bu baax a baax mm-hmm. parce que risque mun mën na la indi say conséquences am solo donc euh, loolu moo tax daal tey ñu ñëw indi suñuy xalaat suñu participation nekk tamit euh, te suñu politique yu ñu mettre en œuvre

donc euh, par rapport ak loolu ñaxtu yi ça dépend si secteur yi ngay wax problématique boo ci duggee man dinaa la indil ay dinaa la dinaa la tontu par rapport ak kii mais boo waxee nii rek donc ñaxtu yu bëri donc du ma mën a donc yegg si joxe ay réponses yu appropriées